julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam di sant Seyxul Xadim di sant Sëriñ Mor sant Seex Modas di tàmbalee suñuy wax ci jéggulu bu baax Sëriñ Abdou Mbàkke ndax xëy na wërta toog ñuy yëkkati kàddu yu soññe waaye nag xëy na dafa doon lu munta ñàkk waa daayira bi yëpp itam xëy na joxe naa ngànt ba sonn itam nag ngir yëkkati kàddu yi waaye ñu ne ma munta ñàkk ndax suñ gisee bés bii nii tey mën nañ ne li koy baaxal mi ngi jóge ci réunion yi nga xam ne moom lañuy ñuy dajee ajjuma ju nekk may sàkku ci mbooloo mépp nag kenn ku nekk nga xool sa bopp ci sa diggante ak sëriñ Abdou Mbacke euh, sëñ bu mi doon waxtaan léegi wax na ci ci moom ay kàddu yoo xam ne xëy na jërul baamtuwaat ndax kàddu yu dëgg moom ku ko dégg xam ko ab xam-xamam duma ci dugg ndax awma xam-xam waaye ab yaram ak fonk ay taalibeem kenn ku nekk ci ñun gisal nga ko sa bopp ni nga ko gisalee sa bopp nag mooy kenn ku nekk na nga xool boo ko soxlaa ci sa yittey àdduna muy lu ci sa njaboot muy lu ci sa kër muy lu ci nga soxla ko ngir bëgg ñaan lu ci moom yitte jën la ciy jox nga xool sa bopp ba xam yow sa bés yooyu ñim la ciy taxawee ndax yow taxawee nga ko moom ci bisam du kenn ci ñun sama bopp laa koy tàmbalee kenn ku ne boo ko soxlaa daf naan la ban heure nga ko soxla heure boobu bu jotee boo ñëwee da fekk mu solo ba noppi moom toog di la xaar ci yoo xam ne yii bëri na taalib yuy jàmbat dañ koy soxla ci seeni sëriñ